président de la république Bassirou Diomaye Faye joxe na ndigal nag ñu arrêté bépp tabax boo xam te ne nii nemmeeku woon nañ ko ci corniche bu Dakar bi loolee nag li muy way na rek mooy caxat-caxatee suuf si nga xam te ne nii nemmeeku woon nañ ko commune bu Dakar bi nga xam te ni na dayo ay hôtel immeuble village nga xam te ne ni ni ñuy màgge ci fi nga xam te ni moo nekk ci domaine public bu maritime bu Dakar bi nag nekk na loo xamante ne nii jaaxal na loole yenn sénégalais yi ci fàttali nag ki nga xam nii moo nekk premier ministre bi di Ousmane Sonko moom sax doon mooy nguur gi loolee moom dinañ ko toj donte ne sax toj googee jamono ji munta antu mais ki nga xam te mooy président de la république Bassirou Diomaye Faye jox na ndigal na gouvernement am ñu arrêté bi nga xam ne loolu rek mooy ki nga xam di défenseur littoral bi di Pierre Goudiaby Atepa ci émission bi nga xam te ni ko doon amal ci dimanche bi ñu génn ci RTS di point de vue